mbokki géejawaay info tey nag ñi ngi seet si champion ndaanaan ñu naan ko Mor Fadam Mor Fadam ñu fas yéene waxtaan ci diggante Balla Gaye ak Modou Fadam ñi ngi lay nuyu waaw baa ngi leen di fay di nuyu waa géejawaay info yëpp euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan ak di ko déglu ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam père Mor bëggoon nañ tey en tant que technicien ci làmb digënté Balla Gaye ak Modou nan nga gisee ñaari mbëri waaw ñaari mbëri ni ma leen gisee moy que kenn ku ne xamna né paré nga té combat bi jox nañ ko ci respecté nañ ko parce que li respect bi moy kenn ku ne dem na bitim réew dafi préparation kon bomba bobu combat la bo xamné bu jara baye xel la quoi vraiment gis nga leen ci euh, face à face bi mujju ñom ñaar ñepp bi nga leen gisee kan nga foog ni moo gën a pare ñoom ñëpp pare en tout cas xam nga fekk simikuwul moom doo mën a xam kan moo gën a pare parce que yére bi mën na làq formule mais li ma xam ba jortu ko rek mooy ñoom ñëpp pare nañ daal waaw. Père Mor Fadam euh, ñu gisoon Balla Gaye dem 3 mois Paris entraînement ñu gis Modou def 2 ans Espagne. boo ñu doon wax ci euh, cadre boobu noonu lan ngañ ciy wax ci ñoom ñaar seen côté. waaw ñoom ñaar xam nga ay préparation yu xaw a différent la parce que modlo dafa dem ànd ak ay mbër di def contact Balla dem xëy na mbër fekk na ko fa mais Modou Lo moo ëpp ñu ko fa fekk lu ëpp moo ëpp ñu ko àndal quoi mais Balla boo xoolee xam ne préparé wu na parce que euh, physiquement Balla ma woon mën na ne presque moo dellu si quoi parce qu'il a perdu beaucoup de poids pour gagner a de euh, la forme bon yaron. Le travail boobu bu sérieux le bu metti la Moi, taxoon mu dem fa dem fa dem xam naa ko UNICEF bu France vraiment ay professionnels ne fa nekk ay ndaanaan ñoo fa nekk ñu mën a entraîné. waaw Modou Lo tamit boo xoolee xam ne moom mi ngi woon ci dynamique bu bu carré quoi waaw moom dafay yokk rek mais moom pare woon na quoi waaw. boo xoolee fa mu demit moom it dafa nëbbu la def waaw loolu nag jar na bàyyi xel waaw yaa ko wax si biir wax nee nga Balla ba 2010 ak Modou Lo pourquoi nga ni moo ñëwaat waaw parce que euh, jamono Balla état mu yor état normal mais après ci diggante bi xëy jël na fi yaram boo xam ak sport quoi sax ko dal arrivé ko revers yi mu am loolu arrivé ko eh, yaakaar naa ne jàngat na ci lu bari xam na ci lu bari waaw ñu gis ni mooduloo boobu ba tey mu ngi ci làmb ji di bëre li nga wax sànq dynamique day yokkaat rek euh, euh, kàttan léegi Balla Gaye su bëggee ñëwaat cent pour cent ci combat ba woon 2010 nan la nan la war a préparé waat combat bi. waaw xam nga préparé moom daanaka xajutu fi kenn ku ne moom. la nga kiyoon rek ngay ngay tari ji parce que dimanche la fim mu toll nii dañu wara limiter sen entraînement di def ay répétition di baña defati sax ben effort bi parce que laajatu ko so préparé ay mois ba combat des ay 4 wala 5 jours gën nga bari 6 jours fofu da ngay wàññi la nga doon def pour gëna maintenir sa forme bi nga am état de forme bi nga yor mais waratoo def ben ciono bu metti bi laajatu ko quoi parce que Père Mor Fadam ñu gis ni euh, Balla Gaye ba tey fi ñuy waxee ak yow ñu gis encadrement bu sérénité ñu gis ay mag ay ñi nga xam ni ñoo yore woon Modou ku ci mel ni entraîneur bi doon préparé Modou ñu gisaat beneen koo xam ni moo doon sotti ëmma seen saafara ñu naan ko baxaw ñu gis ko ci encadrement wu Balla Gaye loolu sa xel en tant que mbër en tant que ancien euh, lutteur lan la lay jox. waaw xam nga yëf yi moom kenn ku ne. da ngay seet rek li nga xam ne moo la doy nga def ko xëj na Balla ñooñu si naa ñoom loo xam ne doy na ko pour combat bi mën a ànd ak ñoom liggéey loolu moom mënu ma ci sori loolu lool parce que xaw ma vraiment la ca la ca xew la ca biir lépp xaw mënu ma ci sori quoi mais daal xam naa ne Balla fonk na combat bi Modou tamit fonk na komba bi Modou Lo lu mu mën a am lu daan Balla looloo daan Balla koo gënal. Balla tamit lu mën a am lu daanaat mo daanaat Modou Lo dellu si waat ci place bi mu nekkoon moo ko gënal moo tax c'est un combat très très très sérieux waaw. Euh, Père Fadam ba tey ci côté wu euh, Modou ñu gis ni mooduloo Lo bi def ci wàññeeku est-ce que baax na ci moom wala baaxu ci moom en tant que ancien lutteur. waaw bu fekkee entraînement moo ko wàññi baax na yaram moom damay wax toujours rek ne bu yokkoo baaxul waaw moo li gën rek mooy nga liggéey ba moom sa yaram xaj na dafa gën a bëgg mobile gën a am rapidité gën a am exécution ci li muy def mu mën cee gaaw quoi nga loolu tamit ab liggéey la parce que moom it fa mu demoon ah ay professionnel la waaw boo xoolee sax xam ne vraiment surtout ki nga xam ne moom lay ànd léegi muy Aliou Dione nekkoon entraîneur équipe nationale bu lutte libre mm-hmm. ak gréco kooku vraiment expérience bu mag la am ci wàllu préparation ak ci wàllu bëre surtout technique waaw. Père Mor Fadam ñu gis côté Modou Lo bi muy dem Espagne dafa yóbbu ay lutteurs yaa ngi ko wax sànq. ñu gis ni Balla Gaye li ñu mën a seetlu mooy yóbbuwul mais mi ngi wax ne foofu amoon na lépp fi mu xam fa la demone moy euh, Paris ñu gis ni batay modlo Modou na ku melni Franc Papa saw en tant que combat bob est-ce que jarul Balla Gaye contact wala nan nga ko gisee dal waaw mo xam xam nga wax na la wax bi sank fi mu toll mom defati fi dara xaju fi xaj bu desoon un mois wala deux mois mën nañ ko jox conseil ka defal ni wala la mais fi mu toll ni mom lam liggéeyoon rek lay fexe maintenir pour demee ko làmb ja waaw. combat bi Balla ak modulo Lo xeex bi ci kan la arrangé diggante Balla ak modulo Lo. ah xeex bi arrangé na ñoom ñaar yëpp parce que ñoom ñaar yëpp dañuy xeex ñoom ñaar yëpp dañuy xam Balla moom ku ne xam na ne moom bëre lay wut buy xeex tam ma ngay xool pour jàppante pour bëre parce que action moom dafa ñeme action quoi waaw. kon kan mooy favori ci wàllu xeex bi. bon favori bi moom neexula wax mais ci kaw xañ na Modou loo am na ci tuuti favori parce que mooy gën a mobile mooy gën a kii mais Balla dafa nekk ndaanaan boo xam ne neexul ci ci làmb waaw. côté bëre bi. coté bëre bi ñoom ñaar ñëpp mën a bëre. cinquante cinquante la. cinquante cinquante la waaw. franchement parlé ñoom ay ndaanaan lañu. Mm. waaw kenn ku ne li moom xam moom ba xam ko mooy. ku ne mën naa daan sa morom ci làmb ji ku ci daan sa morom rek man du ma ne bett na ma damay séentu toujours ne Balla mën naa daan séentu ne Modou Lo mën naa daan waaw. Euh, boo doon xool ñoom ñaar ku ne sa làmb bokkul ak da jël bi nga daan sa sa morom ñu gis ni Balla Gaye jël bu ne daan na ko waaye ñu gis ni Modou Lo jël bu ne daan na ko ñu déggaat foraat ci weewu béy ñu ni bu dee jorgondal la maanaam bëre bu onze Balla Gaye mooy favori nan nga ko gisee en tant que euh, ki nga xam ni euh, champion nga woon ci wàllu làmb tey sa gis-gis. waaw ah, bëri xam naa lu moom Balla moom wax dëgg yàlla li ci wane Modou Lo wane gu ko ci mais nag Modou Lo wane na ay technique yoo xam ne yi ku jar a bàyyi xel la en tout cas waaw mais bëre euh, façon bëre yu bëree bëri xëy na Balla moo gën a wane yenn bëre yu bëri mais Modou tam li Euh, dal na xel ci ñoom quoi waaw moo tax ku jar a bàyyi xel la. en tant que ancien lutteur combat yu toll nii yow sant bu ne am nga ko combat yu toll nii ñu xool ni mystique tellement que dafay bëri ci combat yi. yu mel ni en général. waaw waaw da ci bëri lool parce que combat bee ko laaj mais lu ci ëpp ci wàllu mystique bi yu ci bëri folklore la rek waaw moo ci ëpp quoi parce que xam nga sëriñ yi léegi moom ñu baal ma mais ñu ci bëri. lu mat presque téeméeri butéel nga andi ko ci làmb yooyu xaw na doy waar quoi waaw parce que dañ bay ub làmb dis ko lekk ci biir géew waaw defaru nag cangu nag am na tuuroo loo xam ne lun la def mu dañ yooyu yëpp dafay am mais benn kii bi benn ëppaay beeg yenn takkaay yu bëree baree bari ba mbëpp takk bi moom aar la ci làmb parce que loolu mooy tax mbër mi jekk mais bu ëppee rek day daal di xaw a mën na handicapé sax mbër mi waaw ñu moytu loolu. combat bi en tant que yow lutteur ba sa ban combat la lay fàttali. Euh, fàttaliku na ma combat yu bari comme mel ne sama combat ak Moustapha Guèye lu mel ne sama combat Manga lu mel ne sama combat ak Tubaabu Joor ak yeneen ak yeneen ak sama combat ak Tyson yëpp ay rappel la quoi.